ah mi nag war nañoo taxawaat de te aaraat sunuy njaboot te waxtaan ak sunuy doom te xam nga ni réew mi jamono yi metti na jël nit rendi ko kii rendi dañ ko waroon rendi ba mu xam ni rendi méttee bu ñu ko tegoon ci pinc mi télévision yépp def ko direct ñu rendi ko bu ëllëg ëllëgee kenn dootu rendeeti xam nga dafa yomb nag nga rey doomu jàmbur nit ñi nekk fii jooy ah nga nga dem après ñu yóbbu la ca prison ba ngay lekk ka naan ak a bolot ah ak a toog ca prison ba di di naan attaaya léegi kële ay mbokkam ña ngay naqarlu moom rey nga ko te yàlla wax ni ku rey nit nanu ko rey loolu bu ñu ko defoon agression yi ci réew mi dana wàññeeku mbon gii dana wàññeeku peine bi fi amoon ñu jële ko fi pour réew mi mën a dox stable faw mu amaat ko